ndewoy ndewoy ndewoy seymane ndewoy alaykatim ka mangala yaare Sénégal jërë ngeen jëf mbokki àdduna rawatina yéen ñiy suivre seen site bi di Lutte Sénégal TV ñu ngi leen di nuyu di leen chair di am mbégte kontaante comme ni ñu ko defee chaque jour rek di leen toppal làmb ak li ci biir làmb ak ñi bokk ci biir làmb moo waral tey ñu déplacé wu fi nga xam te mooy Thiaroye Agir seet ki nga xam te ne bii sunu grand la sunu lépp la nekk ci biir làmb ji muy buur géwël bu dee bu nekk fa di fa doxal émission làmb moom lañ seet si nag tey fa seen waxtaan ak moom fi làmb toll ak ni mu jàngatee làmb en tant que ku dund ci biir làmb dañ koy bàyyi ma nuyu nuyu ñu ñuy suivre su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi Buur maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay nuyu euh, di la fay di la ziar di la ñaanal yàlla suñu boroom jàmm di gis tam liggéey bu rafet bi nga xamante nii yaa koy def. Mm-hmm. te làmb yaakaar naa ni loolu rek la ku yokkul yaa wàññi. Mhm. waaye yéen yéen a gi yéen gi yokk. Mhm. loolu nag nekk na ci li nga xamante ni am na solo. Mhm. waaye itam di nuyu tamit euh, démbale di nuyu képp koo xamante ni yaakaar naa ni yaa seetaan sit internet bi bu mag bi nga xamante ni bokk na ci làmb te bi mu ñëwee am na fu mu yóbbu làmb. nga ni liggéey liggéey boo xamante ni liggéey bu rafet la. loolu daal mooy nuyoo bi tey. mais buur ko xam ñu ci bëri xam ko ci milieu làmb. buur sa diggante ak làmb

Max Mbargane ak sama xarit boo xamante ni yàlla na ko yàlla yërëm muy xumaa ma di ko topp ci làmb di ko téel ci mukaay di ko topp di ko topp di ko téel ci mukaay di dem mbapatu Max Mbargane Lamsaar mbër yu bari génne fa Xaadim Njaay fa la génne Ousmane Diop fa la génne Mouhamed Ndaw Tyson jaar na fa ay champion yu bari jaar nañ fa Euh, loolu nag virus bi foofu la ñu toppee. Max ma Mbargane dugal ñu ci ñu topp ko topp làmb topp làmb topp làmb topp làmb. et ba ci yàgg nag ma ne ginnaaw ba ma gën a am amuru communi communication ma dem rajo municipal bu bu rajo municipal. rajo RMD merci rajo RMD toog ci wetu Lamine Thiam dogo def fa ñaari at. stage bi ma paree nag ñaari at yooyu toog lu yàgg nag am ma rajo am ma télé am ma fu ma mën a waxee. mais As Bécaye mbay nag ñëw ubbi FM Sénégal bi mu koy ubbi su ma nekk ko wutal ma rajo mun ma xaar ma rek xaar ma ba ci caag mun ma damay ubbi rajo mais su ma ubbi rajo man yow laa koy jox yàlla suñu borom tamit dogal boobu daal di antu mu tijji rajo daal di ma koy jox ma am fa lu mat ñeenti émission par su ma defee jeudi def lundi def mardi ba ci yàgg mu jox ma Bantamba Bantamba nag fa la affaire bi commencé ma dem ci raison yi def fa Bantamba dem Casamance ñu koj ñu mooy 2006 bi ñi koj Casamance ak Ibakan boobu Ibakan mu ngi ci car bi incident bobu ma dem def fa Bantamba Bantamba bobu na ñëw daal di def def ben def fooy falam ma tambali non nag non la nek ci wetu bekay nek ci wetu bekay ba yalla suñu borom DTV tijji mm-hmm. ñu woo ma fa ci ben ma àgg fa ba fa laa nekk nii di ko di ko di ko mott di ko mottali di ko doxal mais carrière la boo xam daal ci dëkk bi ma nekk dëkku làmb la dëkk bi nga xamante moom laa dëkk day dëkku làmb muy caaray ay ndaanaan dëkk fi mais lépp daal mu ngi commencé ci loxo Max Mbargane ba wàcc jëm ci Lamine Thiam Dogo ba dem ci Bécaye nag moo Bécaye nag moo ko gën a yaatal nag waaw. Euh, parcours bi macha allah mais yan jafe-jafe nga si jànkoonteel am na ci wala. ba léegi maa koy dund. bari na ci milieu bi. millier bi dafa doon millier boo xamante ni milieu bu doy waar bu sew. milieu la boo xamante ni boo ci nekkee lenn rek moo la ci mën a génne fulaak fayda. fulaak fayda te yow sax xam nga xam nga li ma lay wax. parce que doo ci gan. milieu la boo xamante ni dund nañ ci lu baree baree baree bare mais lépp nag. yàlla dafa def bu nekkee dañ laa yar. nga am waajur yu baax. wajur yooyu yar la tagat la dara du la jaaxal loo gis euh, ndax ñun kuñ gis ci on ko jox ko jox ko jox teggin ba suñu invité yi nga xam mom la am suñu plateau sax ñun dañ ni amna bëgguñu ko muy nous. xamanteni day indi ciow bo xamanteni day jaxass ay nit bo mu ay doomu bëgguñu ko parce que nak ñu ngi mais bien vrai que nak ñu kii sédd yalla suñu borom parce que ñu ngi duñu diiné

parce que heure boo ci jitalee xaalis ba mu ëpp dinga nga sànq sa bopp. di nga nangu loo bëggul di nga bañ di nga di nga nangu loo xamante nii eh, baaxul. baa nga bëgg loo xamante ni baaxul. baa nga bañ lu baax. parce que xaalis dafa doy waata xaalis dafa yàq ci bërëb yi bërëb milliers yu bari xaalis daf ko yàq. daf ko ko féewale. di nga gis nit ku wax la loo xamante ni njariñam rek moo ciy nekk mooy mais du njariñu làmb loolu lépp mën nga. man nga mën nga mën nga yàq te gis naa ni ñuy doxalee noo xamante ni ci ñenn ñi ma ko sañ wax parce que du ñëpp mm-hmm. euh, bu ma sañoon mu jeex parce que dem seeti nit ni ko diw lam la wax juge fa demaat ci diw ni ko diw la ma la lam la wax mm-hmm. loolu jaxase la te loolu képp koy def ëllëg yàlla rëbb na la yàlla rëbb na ko yeefit na làmb nag ñu ngi naan lu ko yàq mais lu ko yoo yàq loolu ci la ñun man bi may seetaan làmb mm-hmm. ndaw luy jóg di seetaan làmb dañ naan dof nga Bon, Mbaye Zak pou minister mhm. ak Abdo Aziz Ndiaye, mhm. ngey gis kin da w yo ak menteni, sak zoun ge gis len lambou. Mbaye Zak menek minister. Mhm. Mbaye Zak pou bim de fe esajan, be pare, be ginde, be am diplom zounajis, se m didem lambou, e kope m de yon kwa nan kwa yon den gadof. Yo lambou dji nga top, nangam, nangam. Ta lambou mwen yon esport nasyonal. dañ ko war a téye kon nag tey bu ñu gisee ndaw yi bari ci. Mm. ah vraiment nag ñun xeex nañ ci lu baree bari tey ba ay ndaw bokku nag waaw. Ah, loolu entre parenthèse muy lu am solo jaar jaar bi te lu mun a ñàkk la faaw mu am mais naka nga jàngatee bilan saison bi nga xam te ne bii président CNG bi joxe na ko muy Bira Sène ak làmb ni muy demee. waa Bira mënaguñ ko wax dara parce que booy seet mu ngi informé mm-hmm. te information dafa am solo mm-hmm. mais Bira tam booy seet dañ ko fal te bàyyiwuñu kook boppam. waaw ah dañ ko diriger dañ ko wutal ay nit. Hmm. biraa bu ne Alioune Sarr bi fii ñëw. Hmm. dañ dañ maa fal waaye biñ ma falee par nag man damay man maay tànn ñan laay liggéeyal. mën na man parce que tey jii euh, bu nekkoon démbal dafa la wax ni la demal. Hmm. nga tànn ñi ngay jël tànnal ñi ngay jël sa liggéey man naa am mën naa am lu la lu la finistre rek quoi lu la lu la mais Bira booy set dañ ko fal mais nomeel ko ay nit. ay nit ñu wax ma ne sax xëy na booy seet yàgguñu ci làmb. waaye xëy na sens nekk na ci ñu teg ko ci wetam loolu mu ci mais man CNG bi ñu fa nekk tam ay nit lañ ñoo ni euh, am na fa nit ñu xamanteni ñu am compétent nit ñu xamanteni ni ñu dara CNG. mais jàppale làmb mom mo leen mom mo leen mom mo leen mom mo leen taxajuk a mais pour man jàppale lamb dafa dess ci côté ministère sport. amul. Matarba. non jàppalewul wul lamb ne mooy ministre bi gëna baax ci làmb. déedéet lamb baax ci mom Hmm. non non non Matar làmb bax ci mom mais yow nga ne Matar moom ñu ni lool lañuy wax lan la defal lamb ah ñu ne xeex na ba 32 ba sa 32 milliards ñëw ci la mais 32 milliards bo xamanteni xex nañ ko amul directeur amul dara amul section stade bi. Mhm. amul ben suivi ben suivi. amuko amuko 32 milliards ñu wacc ko ne muy yaq amul directeur stade bi. Mhm. amul entretien bu baax. booy jël stade bi sax yow xamoo ci kan nga wax a dem yow tey jii boo doon jël yaa ngi ci làmb mais tey jii boo soxla stade bi ci kan ngay dem xamoo ko da ngay laajte. waaw kon Matar booy seet làmb ko amal njariñ di ko tuddee làmb muy ñëw di di di di di di di di di am ci làmb li mu war a am ci làmb mais ban ban ban ban lan nga mës a gis loo xamante ni Matar ba taxaw nañ ñu ne defar na ko làmb. man de gisuma ko sincèrement. wax dëgg yàlla li jaaxal mooy ñuy wax ci làmb ñu bari jox nañ ko bopp de. waaw loolu. mooy dafa am ay yenn géwalam mm. am ay xaritam yoo xamante ni mu ngi leen di taral ñoo ñooy toog di ko tagg mais pour làmb ak askanu làmb dëgg koo xamante ni mu leer lañ dëgg moo la tax di jóg wala dëgg moo la tax di wax gisoo lenn loo xamante ni ministre sport def na ko ci làmb 32 milliards président wàcc na Macky Sall wàcc na ci côté làmb ci lim ñu woo defal ñun ci làmb defal nañu ko mais am na loo xamante ni des na stade bu toll nii biisu 32 milliards ñun la amul amul directeur amul dara léegi kooku ñu ne taxaw na làmb Covid 19 bi mu amee nga gis artiste dañ leen jox ba ñu desal xaalis ba ni ñoom des nañ seen xaalis ba jël ko delloowaat ko. waykat yi communicateurs yi amul ku amul ban làmb nga gis ban as ban nitul làmb nga gis wala mbër moo xam ne amoon nga combat ñu dem ñu jox la dara.

yaa ngi soog a ñëw. Mhm. waa mooy mooy fulla ji ma la wax. Mhm. gis nga nit fu ma toll man fa laa lay toll. nit fu ma la toll falaa lay toll. Mhm. te euh, nañ xam nañ sédd ni Matar dafa ñëw fekk ñu ci làmb. te yàlla na ko yàlla may mu àggale ci jàmm ci ministère bi mu nekk mais moom day delluwaat Fatick gëm dëkk bàyyiwaat ñoog làmb. am déet dañ ko nome ci làmb. nekk ci mu nekk ministère sport quoi. mais moom dina jeexal carrière am dem delluwaat bàyyi ñu ci làmb waa làmb nag ñoo war am fulla nag parce que ki nga xamante ne ni yow li nga yor intéressé wu ko. Mm-hmm. yow nag yaay xam yow ni nga yor naka nga koy mën a téye. Mm-hmm. mais askanu làmb boo xee ñu ne Matar Ba xayatu làmb la suñu xayat la loolu ay nitam la am ñu di ko tagg. Mm-hmm. mais par rapport ak liggéey boo xamante ni def na ko ci làmb. xaw ma ban côté la liggéey de mais ci làmb de liggéeyuñ ci dara. non non non non non biis bi biis bi président moo ko def. ñu ne don de Sine la président lañ koy sante mhm. mais xëy na nag moom la ko yàlla tombeel mhm. mu nekk fa loolu ñu ko ci encouragé di ko ci ñaanal mhm. mais làmb ñoo war a jóg booloo doon benn takk mais li lii problème mu làmb mooy da ngay jóg di xeex mbir mi yow ñuy jóg pour di la yow di la yàq am ñeneen ñoo xamante ni sa lañ bokk jóg ànd ak yow di la xeex ndax tey jii boo laalee ni boo nee Matar fukki nit nañ jog ni nangam nangam Matar nangam wala wala ko wax di ko solal mbubu avocat te ñun waxee wuñu pour suñ teeyi bakkan mhm. waxee wuñu ngir Matar ba may ñu xaalis waxee wuñu ngir dara mais lii intérêt lamb parce que ñun lamb lañ bëgg ah mhm. diiran bi ñu nekkee ci amuñu benn espoir bu ñu am mhm. du ñu dem basket du ñu dem football doon ko équipe nationale dina ñu yëg ko sentir ko mais nag làmb mooy suñu sport national waaw làmb jëngaani wuñ ko fii lañ ko fekk ci réew mi moom loolu nag moo tax nag mu war a gën a jàppale làmb mais jàppale làmb dafa des mais nag ginnaaw ba gis nga nag ñu lay tagg te defoo fi dara ah <laughs> moom day day waar day am am na fulla am de euh, mais ñun ñoo war am fulla hmm. stade bii dafa war a am directeur bu nekkee président mu ñuy dégg na ko am loolu moom mooy yoon parce que liggéey biis bu mel nii ñu bëgg koo sacrifier bàyyi ko fa du yoon jaar ndewoy ndewoy ndewoy say maane ndewoy alaykati ka mangala yaara